xasiitu daara badal mi nga xam ne xéewalam ci àdduna amu ca xojj ak seen waaye nag bu ëllëgee am na mber ma mu muy defal ñi ne woon coow ci ay ndigalam bàyyi ay teram yal nañu ci yàlla boole sunu borom moomu mooy atte atte bu xereñ lu ci nekk mu wutal ko waxtu muy sotti ak bis bu muy sotti ak at mu muy sotti lépp ci loxoom la nekk waaye nag moo dikk ñi nga xam ne saa bu dogal accès te doon luy ñur ñuri cib xol am na lu mu leen dikk lam leen dig ci lu nit mënta ñàkk kenn mënu ko takk kenn mënta xam ñaata la bokk yi ay bis yu ñu génn dal na ci sunu kaw ay xew-xew yu tegaloo yu tiifoo yoo xam ne bu ci nekk bu metti la bokk yi benn bakkan bu rot ci kaw suuf nit ñépp a ko ñàkk nit a ko ñàkk ndax amul kenn nit ku taxaw ci kaw suuf di dem a ko dikk te amalut suuf si njariñ kon kenn ku xëy-xëy dem suuf sépp ko ñàkk ñu ngi koy jaale nit ñëpp di ñaan sunu borom yàlla na nu yàlla may xol buñ ko mën a muñe mbir nak feeñ ci mo xamne alquran waxon nako bu yak alquran du xewi mukk leegi nga deg ku wax ba abdunam tàng mu ne àtte woowuñu alxuraan wax na xay wax na bokk yi juróomi yëf wala juróom ben ngi ne yo xamne sunu borom neewon na bu yag mom dal moko xam bokk na ci kañ la bis penki di taxaw bokk na ci kañ lay taw kañ lay taw nag xam-xam dox na ba àgg ci ñu naan la feeg suba sa ngoon yàlla dogal ko waaye la cay xam-xam bu yàlla joxul kenn dencil ko moom ci boppam mooy taw boobee bu tawee kan lañ cay suul ca bàq ba la cay ñoree ñan ñoo cay lekk wér ci seen wéradi wala ñan ñoo cay lekk di ko xaar lekk ko dee ndax faw ñu lekk te loolu yàlla xamul ko kenn teg na ca ne saa boo gisee jigéen soppiku ba tollu diggante mel ni daa ànd ak dara loolee mu àndal yàlla daal moo xam lum mu doon maye na nag ci xam-xam nit man laa wax ne góor laam jigéen ñaar la walla kenn la la ca yàlla xam dénk ko kenn mooy day gudd fan wala day gàtt fan wala ndax day judd faatu dooñ suul am na ba tay ndax ku tabe lay doon wala ku nay ku jub lay doon wala ku dëng loolu yàlla ma ko xam moo ko téye bayu ko kenn joxu ko kenn waaye nee na it ëllëg lu nit kii am nit mën nay xëy waajale ko jóg jëm ca waaye xamu dana àgg waaw wala déet tey jii mën naa am lool la muy liggéey moo koy may mu man ni nii mu demee tey bu ne demee ëllëg dana am lu ëpp lim am tey ndax li ko laaj am nga nangam am nga nangam bari na te wuti na ko ba ñëw yàlla nee na moom dong moo xam ëllëg nu muy ñëwee waaye teg na ca ne yàlla daal moo xam ñi ku nekk fa muy faatoo bokk yi la ca mat seetlu te ku ko man mu bàyyee yàlla ak boppam ñañu doon rawale jële leen Louga di leen yóbbu Dakar am na ci koo xam ne ma mas naa dugg fafal naa waaw wala déet waaye ci kaw jaww ji la ko defe defewu ko ci kaw suuf defewu ko ci kaw ndox yàlla noppi na ca bu yàgg bokk yi kañ la jéye ju ma noonu mas a am ñiy fab ña ca amee gaañu gaañu di leen yóbbu ci fafal naaw yàlla da ko ca bind te mënu koo teggi wa ma tadri nafsum bi ay ardin tamut kon njàngat mu rëy ngi foofu ne lu la të bàyyeel ak yàlla dogal na ba noppi dogalu yàlla nag bokk yi mu ngi mel ni misaal nañ ko lu bari am na ñooñ bu ñu bëggee teel a xëy dañuy fexe ba def seen montre waxtu sàngam gis nga waxtu sàngam moom bu ñu ko ko defee li fekk dindi wuñ ko saa bu fa accès dana yëglu moo xam muy nelaw wala muy wala mu yëkku waaye daal dana def la mu ko santoon dana nekk kar léeg-léeg mu bëgg nelaw ne ko nii mu a cal waaye saa bu waxtu wu ñëwee dana ko def loolu mooy ab dogal buy ñëw yàlla nañu fekk ci la ko gënal njàngatum ñaareel ba bu ñu demee ci alxuraan danañ ca fekk ab yonentam bu ñuy wax yaquba alayhi salaam amoon na fukki doom ak benn القرآن كنتل إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين <clears throat> بكو يالا دي فيل داف كون سو دوم ياك ñaar ben fukki doom أحد عشر كوكبا Asam shams wal qamar mooy ndeyam ak baayam raaytuhum li sajidin bañ ko bokk ya sànkee ba ñu xam fam ne ba bëgg faa dellu am kum ci téye ne leen kii duma len ko jox mukk ngeen di ko yóbbu dima dima ko xañ na ngeen ma magam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 waaye ay yoxoo nga ca nag bañ ko wanee firnde yu leer ne ko danañu ko delloosil ba mu doy ko dana bàyyi naa leen ak yàlla kon ay ca dem leen waaye bu ngeen dee dugg dëkk ba nag bu leen bokk duggandoo ñu di leen xool di leen waññeendoo naan ñee ak kee ak kee wa qaala ya baniya la tadxulu min baabin waxidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa loolo ba ko mag nga daan wax naan bu leen bokk benn sareet bi bu leen bokk wenn fas wi alxuraan lañ doon jëfandikoo yaquba alayhi salaam daf caa teg ne li tax ma di leen ko wax dama leen di dénk dong waaye yàlla mooy sottal wa ma ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal mutawakkiluun kon bañ defee nam wax لم بقون أمنكو لن بقون أمنكو يوم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها كن فو يدلس القرآن ديكو نفر أك ديكو نفرات بكي نيونيا muy bu mujj bi ak bako jitu yeb bi am ci yoonu diggante Kaffrine Tamba ak bi am ci diggante Louga ak Ndar bu ci nekk lu bari la yóbbu ci ñoo xam ne bokk lépp walla ñu bokk bokk gu jege waaye bokk gañ bokk di dem bu kenn ne dañoo weddi la alxuraan waxoon dañoo amul pexe bokk yi njëgg mi mooy yi yóbbu nit ñi walla yàll yàlla mi daa doyut am na dëkk yoo xam ne bu la fa bàyyee ëllëg ngay dem wala ginnaaw ëllëg kon faw nag ñu nangu dogal bi yam ca waaye faw ñu joxoñ diw ak diw ne faw ñooñu ñu weesu fañ taxaw nag ndax li ëpp ci li ñuy lijjanti mooy dëkk yu mag yi nu ñu def ba njëg mi dama ko dikk rek waaye ku wàcc dëkk bu mag war a jàll ci dëkk yu ndoona waane ca wàllaa waxaguñ ci ñoom dara kon faw danañ ko bokk bokkuloo danañ ko buux buuxloo ndax léeg-léeg yitte moo koy laaj ba dem du mën a ñàkk kon ñi buur war a yorale nit ñi seenum njàng segg ko ba set ba duñ nangu kenn ku jàngale te tàggatu la ba wóolu la ñi buur yore am paj ba nanguwuñ kenn kuy leen di nuru nurulu te bokku ca non la ko yor njeg mi ware ak yol mo war di yóbbu ñep mo war di jangal ñep mo war di faj ñep mo war di ar ñep bu fekke man-man ba gu ko itam jar na wuti ko waye bokk yi dekk yu magi ci senegal tuuti la ci boko den boko mengale ak sufu senegal amna ñoo lañuy la dugg di dem ku ko xam da nga xam ne am nañu sollu ci dem dëkk dikk bi lool lu mat a seet la gàttandu ci dogalub yàlla Seydina Omar ba na ne day dem bilaadi saam ñu ne ko jàngoro dafa am ci wàlle dana nañ far fomm te kat dañ fa doon woo yóbbu wooteeb suñu borom bi am ku ne ko waaw mbaaru da ngay moytu wéradi kese gu am ci dëkk sangam te yàlla indi ko fa mu ne ko ah kay toog gi may toog di ko moytu ci dogal moytu ci ci dogal yàlla dugaat ci dogal yàlla dugaat kon boog ñim war xawma ñu doon waaye am na ñum war ndax ku ci bëgg a dem dem ku ci bëgg dem ci réew mi foo bëgg a dem dem te yoon day gaaw lool mën nañoo bañ a xam yoon wu xat mën nañoo bañ a xam yoon wu minute na mu war a mel ndax bala cee kenn dem am na ci ñooñ bokk balaa ñuy dem danañ ko tàpp tàppal ba mu neex a jaar ca ay jamono sax daanañ taax garab yi fuddën fuddën su weex nga xam ne garab yi day weex tal mel ni lépp daa baax te buñ demee duñ laaj ñiy dund ca dëkk ba dëgg-dëgg dañuy wutal waa dëkk ba ñu leen di waxal dañuy wutal waa dëkk ba ñu leen di xoolal naan liñ xool jag na liñ wax lépp jag loolu nag bokkut ak àdduna yan bu diis la boo xam ne ku jaar ci aw yoon mënut na mu war a mel lu ci sikk ëllëg yàlla dana teg balaas ndax ku ne mën naa ko ba noppi yées ay kaen bañ bàyyee ko ko lu ca xew moom lañ koy laaj su ko wóoree ne mënu ko daa war ne mënuma ko jox keneen ku ñu wax ne ku ñu yaakaar ne mën na ko kooku it war lu ko lu ko waaye lu ko nit ñi xam-xam dana xam boppam am na jamono yoo xam nag bu ñu fa tolloo muñ rek fay sës ndax muñ ci diine ñu gëm yàlla mi ngi mel ni bopp ci jëmm jëmm ju mën a doon bu dee luy dem ak dikk la nit la walla yàlla bint ñi dem ak dikk lu ne mën naa sikk muy jéem a dem ak dikk ba mu des bopp ba saa bopp ba tàggoo ak jëmm ja moom leneen lay tudd lu bokkut ak jëmm ja kon gëm yàlla muñ daf caa bokk yàlla noonu yàlla jox xolum muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nag ku muñ muñ lu yàlla yónnee ko muñ dëggantaan mu toog fa te du fa génn moo ne muñ moomu day am na ci yonent yàlla yi ñoo xam ne ca la leen yàlla yéegal def leen ab yonent yëguñ ko woon yëguñ woon ne ay yonent lañ am na ku muy wax inna wajadnaahu sabiran ni'ma al abdu innahu awaab koo xam ne ay góom la yaram wa feese woon ba noppi muy xasanu di ca dolli saa bu xasanee ba mu dog ba mu dagg bay ba ba génn génn fu mu laalaal mu defaatu góom fu ñu nañ la fa yóbbu faje la mën ko yàlla may gis xam na ko moom ma ko teg te mën na ko teg waat ni'mal abdu innahu awwaab waajaa nga noona ndax kooku lu ko mën a dal mu a yàlla waye amna jaamam ñu tuddu ci alxuraan it ne ñoom bu ñuy dox ci kaw suuf si duñ ci yàkkamtente dañuy dox nañ ko mane sa bu aggé baxna buñ leen soññee soññu leen gaaw leen gaaw leen gaaw leen duñ leen wuyu ab dox la tudd waaye lu mu mën a doon rek noonu lañ cay doxee alladina yamshuuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluuna xaalu salaama dem na ba àgg ci naan ñoo ñeekat bu ëllëgee fa ñuy dëkke ku ko xam da leen ñee donte ñeetante amul aljanna waaye da nga ne li ñii lu la war a may li ndekete yoo muñ nga doon muñ ŋàññ ya ak joxañ ya ak gaaw leen gaaw leen ya moo leen ko may bi muy wax ci waa aljanna ëllëgit ya ñuy am la leen koy may mbooloo ñoo naan salaamun aleykum ñu ne tekk waaleykum salaam ñoo xam nga fi nga nekk fu mu doon mu ne aljanna lañ wax ne moom la mu ne xam nga lu la ko may mu ne xamaguma ko nag mu ne ko bi ma sabartu fa ni'ma uqba daar moo ne bu ma ko gënee jegeel nga xam ne mën na dal ku nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki lu ko mën a dal moo xam daa ñàkk mbokk moo xam daa ñàkk alal moo xam ne daa am gëpponte amuko na ñaan yàlla rek xam ne su ko muñee yàlla lam denc ëpp na loola dem na ba ci ak dég jam nit ki sax yonent bi sallallahu alayhi nee na bu ko ak dég jamee ba metti lool mu sekki ko muy war wari te bàyyi nee na dégg googu ko jam yàlla mën na caa sukkandiku faral ko ñaawteef yu bari yum defoon te yëgul ne def na bu dee ñi nga xam ne dañoo ñàkk bokk yu leen jege wala ku leen jege wala lu leen jege damay jël mel misaal fii ci dëkk bii rek am na bés kenn ci saa bàjjan yi fi nekkoon saa bàjjan la leen waa daan wax mooy soxna yu mag yi koo xam ne ab yarluwaan ab waanam moom la maye woon ci biir këram yàlla may ko takk ndeer takk ndeer ba dem ba ku ko woo mu ñëw boo ko joxee mu bank boo ko laajee mu tàllal la tàmbalee am yaakaar foofu la ak dundam war a yam mu di koy mettit lu mettit lu gu metti di yuuxu di jooy ñu di ko téye mu bëgg mbëkk soxna sa ne indi leen ma ko mbaxam lu muy jooy lu mu ñu indi ko mu ne ko li ngay def lu mu mu ne ko doomam mu ne ko yow danga may ñaawal di ñaawal yàlla yow sa doom jooju ngay wax mën ngaa dem ni fii laa ko suul man mii di wax ak yow yàlla joxaguma ko te yaakaaruma daan ma ko jox ndax at yi ma toll kon boog natt bu ma a dal nit na xam ne am na ku ko gën a mettile fuuf ñaara ngi ñuy wéradi bokk benn saal ci hôpital ñoom ñaar ñëpp nit ñi dégg leen ñuy jàmbat kii naan ay waji su ma noonu lekk ba wér xam nañ lekk dafa digganteem ak wér daa munta lekk kee naan cay waji su wéroon ba lekk bëgg naa lekk waaye munta lekk kii kii munta lekk daa wéradi kee mën naa lekk waaye wéradi dox diggante ko diggante boobu nag ku fekk ca saal booba ñu topp ko ak joxañ topp koo ki tuuma topp ko ay ayibal dana xam ne am na ñum mu ne ndax moo fa indi boppam te mën naa delloo boppam mën naa lekk mën naa naan mën a nelaw yàlla na nu yàlla boole ci muñkat ya ya nga xam ne su ëllëgee euh, <clears throat> lu leen mën a teg ñu muñ ndax ku muñ ab nattu mën naa jóge ci yàlla ci yàlla la jóge am na suy jaare ci nit ñi su fekkee mënoo ko faj sa diggante nit ka bàyyee ko yàlla te muñ toog nekk ndax mbokk yi mag nee na woon <coughs> suñu bloxal yàlla lu mu la jox ci sab xarit la ko jële jox la ko te bi mu la ko joxee ba nga defee ne yaa ko moom it mu ngi seet ku bu koy jël ci say loxo ku mu koy ku mu koy tegaat ci loxoom yàlla na yàlla defal dëgg topp te musaluñ seytaanee ki pakkam muñ nag du dem ba ci gëdësatu ci guy nga ne noo ngi muñ soxnaa ngi nii soo xam ne niroo naa ki ma jëkk a wax léegi ci sa bàjjan ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax lagal kii da ko dal mu dem moom sanc sa armeel ya far fa fañ suul doom ja buñ ne ko ñëwal añ mun a suur na ñëwal reer mu a suur na di jigéen ba noppi di fanaan ci armeel yi yonent bi yëg ko sallallahu alayhi wa sallam dem tàmbali ko laabiire rek mu wax ko wax ju ñagas a ñagas ndax ñàkk xam ak lam jàpp ne moo ko dal amatu sago nit ñi ne ko xanaa xamoon ki nga doon waxal mu ne ku mu doon ñu ne ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu fàtte bàmmeel ya fàtte armeel ya fëx ñëw ne ko ka nga doon waxal man mii la woon dama laa xàmmee wutoon kon boog dana muñ yonent bi ne ko déedéet as sabru inda sadmatil ula muñ lii nga def du muñ da nga amul pexe ca ngay dégg ne daawut raay raayal kenn daawut neexal kenn kilifteef noonu lay demee kenn du mel ci yow nen ba mënoo ko wax dëgg wër sa am la muy doon doon jigéen la muy yërëmtalu lépp yonent bi yëgut loola la mar a wax rek la wax muñ du dem ba amuto pexé waaye bam né xuyu rek ci ngay fab muñ def ko né nekk dëkk ca te bañ koo génnati lana wa lakum wa li sa'il amin qazidu darabadal